ndeysaan ñaari xale yaa non noonu si digg bi fils de Sam Sam ak ki nga xam ne mooy Petit Lo ndeysaan fils de Sam Sam jóge ci ndam lu rëy Petit Lo nag ndeysaan nee naa ko moom si déreetu làmb la juddu ñaari xale yi diggante ak Sam Sam Petit Lo daa jóge fils de Sam Sam ci victoire ba léegi diggante Parcelles ak jàmm gën la fi ndeysaan ñaari ñaari xale yu mën a bëre ndeysaan ñaari ndaanaan waaye nag faaw mu kenn ku gañe ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li mu bañ système mu leen di bañ sifflé moo leen di boole waaye moo leen di tàkkale nee leen nee na leen li moo leen di boole li moo leen di tàkkale moo leen di naan bëre la baaxu góor la ndeysaan xale bu làmb tollee fii damay ñeewantal ñaari xale yi ndax ku ci nekk ndam ngay wut si. supporter yaa ngi ne tekk ndeysaan. fils de Sam Sam sa sëriñ lu mu la waxoon. oh arbitre. waxoon arbitre sifflé na. arbitre sifflé na sister. combat bi day gaaw wala du gaaw fils de Sam Sam Petit Lo ndeysaan. combat bi góobo mu gaaw nax ñaari mbëri tactique la. dañuy calcul entre gën ndeysaan ak parcelle. ndeysaan diggante Petit Lo ak fils de Sam Sam. ñoo ngi def jeu de lecture. ndeysaan ñaari xale yi yaa ngi ne tekk di déglu sa morom. ndeysaan ndax combat bi du xeex. du mujjee xeex si ta ngoone. fils de Sam Sam Petit Lo lépp mën na cee am. ndeysaan fils de Sam Sam Petit Lo na léegi. Petit Lo ngi door na. fils daan doom. laay léegi baal door bu daan doom. fils de Sam Sam Petit Lo. la jël na ko luy xew lan mooy xew bañ na dafa diis. fils de oh, daan na ko Petit Lo daan na ko. daan na ko Petit Lo daan na fils de Sam Sam. Petit Lo daan na fils de Sam Sam. Petit daan na daan na ndaanaan. Oh, Petit Lo si defet la jóge ndeysaan ndeysaan Fils de Samsam daanu na combat bi daa am fu mu ko yegg oh Petit Lo daanu na waaye champion daanu na ndeysaan Petit Lo daanu na Fils de Samsam doomu Samsam bi daanu na oh ndeysaan Fils de Samsam defal jàmbaar daanu na ndeysaan ndaw nga xale nga yaa ngi ci yoon waaye champion waka daan ndeysaan Petit Lo Petit Lo champion la ndeysaan ma ngay dem oh. sa papa Sow ndeysaan ndeysaan ndam demul ndam di ku lekk Sénégal la ndeysaan ndaanaan daan na ndaanaan ndaanaan moo daan ndaanaan Petit Lo daan na ndaanaan Fils de Samsam ay ca